lépp lu ko président wax ah, ci lu baax dina ko dina essayer def ko ak lépp loo xam ne moom it xalaat na ko loo xam ne mooy njëriñu askan bi mooy ah, ah, li ko président dénk loolu man am naa ci yaakaar ak yooyu mais euh, xaaruma ci premier ministre mu ñëw pour que man ma gis ci sama bopp man président Macky Sall laa àndal moom laa gëm moom laa bëgg aussi je le répète mu muy naaj muy nelaw moom président Macky Sall laa bëgg ci wàllu politique moom moom laa bëgg moom laa gëm tey bu mille vingt 2024 amoon mu samp ndëndëm Macky Sall laay woteel 2029 Macky Sall ñëw samp ndëndëm moom laay woteel du ma woteel keneen loolu moom man moom laa signé mais man li may li may am ci politique tey Macky Sall moo ma koy jox su ma euh, pour keneen soxla ma su ma ko bëggoon am ko ñaata premier ministre ñoo fi jaar. ñaata ministre ñoo fi nekk ñaata DG su ma tey su ma am na ñoo xam ne su ma nangoon dem dem seen cabinet wala su ma nangoon dung dunguru leen dunguru leen comme ni ko ñeneen di defee ñu jox ma li ñuy jox ñeneen ñi mais du ma ko def dew ma ci benn ministre wax la sama soxla Sénégal ni ñu ko dégg dinañ yàq nag sama der dañuy yàq sama der mais dew ma ci benn ministre dew ma ci benn DG ne la lii laa soxla man ku ma xam su ma amee soxla dinaa xam xam naa fu may dem pour régler sama problème je suis un enseignant euh, euh, jàkka ja yow mi xam nga ne danga dañuy daje jàkka ja tout ñépp ku ma xam xam na ne toutes les prières presque ci jàkka laa jàkka laa koy defee musuma génn Sénégal seen Sénégal laa wax de jël avion def naa ko ba tàyyi nag mosuma jël avion te dew ma ziyaare Touba wala dew ma ziyaare euh, Tivaouane mosul am